الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين جناب نسانت برمي سبحانه وتعالى جلت ننتبي صلى الله عليه وسلم نيو جسينيو نيفم نيميروتي لا تحزن لا تحزن دي برنامج بني جنجل نلن يورد نيتي أدنى ba bañ am benn jafe-jafe wala benn stress ak nan lañu war a gérer suñu dund ak nan lañu war a waajalee suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala dund ko ruuxiyan neuvième numéro bi dañuy jàng li ñuy wax la takun immaa immaa mooy nit koo xamante ni du jël décision ci boppam maanaam foo ko fekk rek moom dafay déngi déngi du xalaat xalaatu boppam rek jël décider def dara laa tataqamas shaxsiyatun gayruk wala tadub fi l axarin bul jëbbal sa bopp beneen nit te it bul seeyal bul jël sa jëmm ji seeyal ko ci ñeneen loolu mooy lan léeg nga gis nit boo xamante ni moom foo ko fekk du dox ci li ko concerné toujours day topé li ñi tuddé al topé lolu baxul ci doom adama day tax du mag xel du mag ci ilmiyan ci xam-xam du mag ci aqliyan ci xelam waye du mag ci ruhiyan bul seeyal sa bopp ci nit ñi am nga xalat am nga capacité amna na loolu defal ci xel ak ci kattan ak ci yu bari waye bul sa bop ci nit du nek du ñak na ngay wut xalat ci doom yi ak lo xamni lañ lañ lay dimbali ci walu nasiha amna lo xamanteni yow ya koy tiyel sa bop en tant que doomu adam ndax in hada huwa al adab al daim nit ki nga xamni dafa jébal bopam ay nit wala mu seyal bopam ci ñeneen ci yeneen xalaatu nit amul lenn lu muy xalaatal bopam amul lenn lu muy décider ci walu dundam lolu moy mbugal bu gën metti ci mbugali ci la bok ndax wa kathirum هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم وكلامهم برنا تنيوم زاري نوم فولن فيك دانيي فات سين بوب داي ملني داي ملني منو ني دارا داي فات ني نيوم من ني دارا نيت دينا جانغ ام خم خم بو خمول ني خمنا دو مانا جارين كين سي خيلت نونو سي كاباسيتي ليغي نونو ñoñu nak fofu lañuy toll nit ñi nga xamne dañuy jébalu ci ñeneen dégg nga seeyal seen bopp ci ñeneen foo leen fekk ñoom dañuy fàtte nii mën nañ dara wala xam nañu dara wala am nañ xalaat wala am nañ kàddu wa mawahibahum wa durufahum li nga xam ne mooy seen may koo gis rek am na may bu yàlla def ci moom mooy don li ñu tuddee don du xam don bi ko yàlla jagleel don bi mën na nekk ci kàddoom mën na nekk ci xelam mën na nekk ci liggéeyam mën na nekk ci xereñ ci tànk wala ci loxo wala mënti doon waaye malheureusement du ko xam xamul boppam بكرة دون بابو مالن دون مايليان صهيرو في شخصيات ال ما كرة يمكن دون بابو نك خم بين كوي خم مايتا ليان صهيرو في شخصيات الآخرين نيمو جدم جبل سين بابو تينين لولا نك دي دون فبلس بمك دوم عدم لولا كرة في مايلين تي الصلف والاحتراق والإعدام للكيان والذ... وللذات لا فأملو يتدي Euh, nit dafa am li ñuy décision ak bagn manam ak bagn ak li nga xamni moy xex xeex gis nga ñett yoyu bép chaise buñu ñu ci aduna xamal ni likoy maye bokk na ci bo déggee chaise moy mo xam pouvoir la wala garat la wala lu mënti doon nit bu ko bëggee am il faut muy décider il faut muy xex il faut muy bagn pour mu mën am yoyu وتحجس جلوالا من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق إثنان في صورة واحدة بي تدوم أتي سيدنا آدم با نيت كي يالا مجي بند تي أدنا أمول نياري نيت يدبو تي بن ملوكان لول مانت نيك كون نك فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق كون لو كون ني تي أي تي أي دون أك تي أي جيكو مانت نيك على كل حال نيت نيب ووتي أنت شيء آخر لم يسبق لك في التاريخ مثيل يو بين بين بيرغا بو خامتاني يالا نيمو بينون امول كين كو تي ملني يو امول ولن ياتي مثلك في الدنيا شبيه في بعد ندي توكي دو غيس بن نيت بو خامني دا ملني يو دا نياك نك اي نيت داجي تي يين جيكو ولا تي يين دوخلين واي نيت كو ملني مختار جوب يلا بنات بنين نيت بو خاني موم مختار جوب تك تك لا سي بن سي خلات سي دخلين سي دخين سي واخين سي لب لولو امول اذا انت مختلف تماما عن زيد وعمر دا ووتي كوم ني زيد عمرو ني ووتي كون فلا تحشر نفسك في سراد بالتقليد والمحاكاة والذوبان كونك بول جيل سا بوب دا دي كوي ساني رك سي pont ci manam ci kaw bo xamante ni dang fa may ruq bo xamni dang fa tek sa bop rek te do jema avancer jebal nga xol li nga man nga jem ci dara lola ci gatal rek da ngay gis suñu société ko xamni da fay jang jang la mu jang am yallu ko ci yalla ubbe waye du ko xam nit ñi ni ciébi di wuté ki toggu dama da kele toggu dama da kenn ku ci ne guubi wuté non la guuy wuté ci doomu adama yi إذا انطلق على hay'atika wa sajiyatik doxal yow ci ci sa melokaan bi nga xam dox ci nga nga jéem a imposer sa bopp ndax qad alima kullu unasin mashrabahum kenn ku ci nekk nit ku ne xameef na ko ci naanuwaay bi dégg maanaam nit ku ne la muy saf am na lu muy saf loo xam ne ci lañ koy xàmme ci gàttal ndax alquran moo ñu jàngal wali kullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul xayraat kenn ko ci ne am nga jubluwaay te yàlla mool la kila jëbal foofu yow kon nag ña ngeen njëkkante kon yu baax yi yiw yi njëkkante leen ci ash ma xalaqta bokk na ci yëkkante ñiw yiw yi ash kama xuliqta dundal comme ni la yàlla bindee la tuxayir sawtak bul changer sa kàddu moo tax boo léeg nga dégg nit kuy roy nit ci kàddoom sax di ko imiter loolu ñàkk xam mawhiba bi ko yàlla defal la ñàkk xam dégg nga li nga xam ni yàlla def na ko ci moom ci don mais bu ko xamoon dëgg du ko jéem parce que mënul roy kooku ba mel ne moom teg teg teg noo mën a def rek différence bi am kon bul changer sa kàddu toppal kàddu bi la yàlla jox nga doxal ko laa tubaddil nibratak laa tuxaalif machiatak haddib nafsaka bil waxi walakin laa tulgi wujudak wa taqtul istiqlaalak lu mën a am rek na nga fexe bul wuute ak sa ni nga daan doxi toog bul toppandoo kenn ci doxinam yoral sa doxinu bopp boo yoree entreprise yoral sa esprit bi nga xam ne moom nga ko gérer lu ñàkk nga am yoo xam ni di nga ko jël ay données ci yeneen entreprise bopp yoo xam ne du bokkul ak sa bas waaye am loo xam ni sa secret la war a doon sellal sa bopp ci wax waaye bul sànni sa bopp it ci ñàkk dem ba amaloo amatuloo indépendance ci sa bopp anta laka taamun xaas am nga benn genre cafka boo xam ni yow la ko yàlla jagleel wala woon xaas ak melo woo xam ni yaa ko jaglo ci ñam wa nuriduka anta bi lawnika hada wa taamika hada لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا لا يكون أحدكم إمعة kon nag li ñu bëgg ci yow mooy melokaan wi la yàlla defal doxal ak moom cafka wi la yàlla doxal yoro ko ndax yàlla def laa bind pour loola ñu xame la ci loola kon nag bul bul sànni loolu yëpp dem di jël yeneen yoo xam ne melokaanu jàmbur la wala cafka jàmbur la bokk na ci kon leçon la ñi nga xam ñi ngi jéem roy tubaab yi mënuñu fexe ba doon tubaab ku jéem imité naar mënoo fexe ba doon ba li am solo sénégalais la la yàlla def def la nit ku ñuul fier ci nga dox doxinu sénégalais doxini nit ku ñuul ان الناس في طبائعهم ashbaha بعالم الاشجار نيت نيب سي سين ناتوري دانيو دانيو دانيو mel comme ni garab mel dañu nduro ci ay nature comme ni garab nduro garab comme hulwun wa hamid ni da ngay gis ñoo dañuy neex yi nga xamni day day weex way tawil qasir yi gudd yi gàtt hakata fal yakunu ñoom tamit non lañu mel way amna lañu lu ñu wutale nag mooy mawaahib yi nga xam yàlla da def ci noonu kon nak fa in kunta kal mawsi fala tatxawal ila safarjal bu dee yàlla dalaa def nga melni banana bul jéem a soppi sa bopp dem ji pour bëgg a mel ni pouvoir mënta nekk kon boo ñuulee bul xeesal bàyyi feer feeral ci ñuulaay gi la yàlla jox nga dox ci dafay rafet ci yow te du yàq dara ci sa wér-gu-yaram li anna jamalaka wa qimataka an takuna mawzan gis nga sa taar gi ak sa xiima mooy nga nekk banaana parce que yàlla banaana la la mooñe loolu mooy lan boo ñuulee li lay jox taar ak li lay jox qiima mooy nga bàyyi ñuulaay boobu noonu ba ca yok dara in ixti in in ixtilaafu alwaanin alwaanina wa alsinatina wa mawaahibina wa qudraatina ayatun min ayaati lbaari fala taxjud ayata nga xam ni kon nag li nga xam ne mooy wuute gi ñuy wuute ci suñu melokaan yi ak ci suñu làmmañ yi ak ci suñu don don yi ak ci suñu kàttan yi dégg nga yooyu dafa bokk ci kàttanu yàlla ak ci kéemaanam yi yàlla moom moo ko dogale noonu yow nag jullit bi boo jéemee changé loo ci jéemee changé rek dafa mel ni yaa ngi jéeme weddi kéemaan yooyu nga xam ni yàlla def na ko ci yow kon lu am solo la ñu bàyyi xel suñu bopp li nga xam ni yàlla defal nañ ko ci don ci xel ci xalaat ci xam-xam ci dayo dégg nga yooyu yëpp ñu jéem ko exploité pour mën a dem ak suñu bopp kon doomu aadama daal bu buggee réussir ci àdduna dafay fexe mu jéem Euh, jàng boppam li mu man mu exploité ko ci gàttal nit bu jàngee dara bi spécialisé wu jàng médecine ba noppi bu gën a dem bu gën dem ne dafay jàngale maanaam loo xam ni bokkul ak médecine maanaam day jàngale informatique du ci réussir parce que médecine la xam informaticien bi bu jugee ci informatique bi dem na day jàngale ji médecine it du ci réussir kon médecine ci jàng médecine day def day def médecine rek dem faji bu mu réussir ci lu yomb ki def informatique moom it ki def leneen it noonu la rek loolu la ñu suñu dars bi di jàngal tey ñu góorgóorlu ci baax xam suñu bopp xam ni doomu aadama yi ku ci nekk rek ak lu mu tuuti tuuti lu mu njool njool lu mu gàtt gàtt lu mu digg doom lu mu rëy rey rëy ku ci ne rek am na lu la yàlla jox lu mu joxul sa morom boo ko rek daal di ci mën a jëfandiku ci àdduna waaye it sa digganteeg borom it nga defar ko يلدي هولدي جاك توب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته